Youssou Wade ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM mhm, nga bokk établissement Mame Ndar euh, boobu boobule bokk ci collectif concessionnaire ñi nga xam ne euh, ñoo ngi doon ñaxtu le vingt cinq gi euh, ñoom nag li ñuy ñaxtu lan la monsieur Wade non li ñuy ñaxtu mooy dañ toog juróom ñaari weer fayu nunu mhm. bon ñu dem ba léegi si actuellement mënatuñu dem. Mhm. parce que ku si nekk jot nga une lettre un euh, mail de ton fournisseur koy jox gasoil bi mu ni la mënatu mën a jox gasoil yi oto yi gasoil la koy doxal. Mhm. c'est des dépannages tout ça mais léegi ils nous ont léegi on peut plus aller. Mhm. moo tax ñu taxaw nag léegi nii. nanu essayé toog ñu ñu ñu kon ne liggéey bi damoom ngeen toog ne ñett euh, mois lañ leen yoreel sept mois yooyu le ci xayma ci xaalis ñaata la toll non ñu ngi koy xayma autour de sept milliards ah mois sept milliards waaye yéen euh, ngeen teg set milliards yooyu ndax da ngeen toog waxtaan gis seeni bon xool dajale ko mu mat euh, set milliards wala da ngeen ko estimer à peu près ok dañ ko estimé de on a fait des extrapolations par rapport à chacun sa facture ñu ni kon actuellement yore na nu sept milliards mm-hmm. bu loo xamee ne dañoo toog jël maam daal jël jël jël jël comptabiliser que mais euh, sur une réunion bi ñu defee une évaluation ñun on estime que war nañu yore sept milliards njottu ne mën na ko ëpp tamit mën na mën xam nga joxe chiffre ci loo comptabiliser gul wala loo additionné gul da nga mën a def extrapolation rek ni alors euh, mën na këpp ko man jàpp naa ni mën na këpp kon euh, euh, gënuloon prudent ngeen bañ a joxe chiffre yem ci sept mois yi wala non xam nga booy alerter ci da ngay alerter nit ñi suivant le montant pour wax ni actuellement fii lañ toll mhm. mais bu ñu sur les chiffres on que ni bon peut-être c'est à sept milliards trois ou bien huit milliards ainsi de suite mais pour le moment le chiffre qu'on peut avancer mooy à peu près ça tourne de sept milliards. sept mois moom bëri na di euh, ngeen toog boobu ba tey euh, amaana na sax lu ko dese pour mu mat at bëriwul euh, lan moo waral ngeen toog ba jamono ji ngeen soog a yëglu. non xam nga ku si nekk booy liggéey aussi da ut ay mécanisme mécanisme mhm. yi ñu doon moo ñu permettre ñu dem ba ñëw ba fii. tout en sachant que ni ñoom dañu yaakaar ni moom. balaa boobu la situation day dekkante xam nga julli da yaakaar rek. Hmm. mais yàlla mooy mottali. xam nga fi ne nii boo ma waxee ni ma suba dama yaakaar suba boo ma waxee suba sotu ginnaaw suba. Hmm. noonu la situation bi doon demee ba ba mais bu ba xam nag léegi moom moo tax ñu taxaw. Hmm. ñu bëggoon a xam yéen nan kenn ngeen di liggéeyal exactement euh, kan mooy seen tutelle kenn ngeen di jëflanteel. UCG la ñuy jëflanteel. nan ngeen di liggéeyee moom. li ñu liggéey ak moom mooy ku si nekk dañ la jox zone boo xamee nii fa ngay dem ak say véhicule nga collecté. Mhm. boo demee ba bés on te des bons jox la bon yoo xamee ni fi mu ne nii moom ngay euh, comptabiliser moom nga yóbbu ci sa service bu weer bi dewee tu fais une facturation nga déposer au niveau de CGE. Mhm. kon daal UCG euh, euh, ndax doy na leen euh, tey ci jëflantel wala dangeen am yaakaar ne war ngeen mën a gën a sori am maanaam mit tutelle bi ngeen mën a waxtaan ak moom ci li nga xam ne wala sax ngeen jëflanteek moom ci seen liggéey. non na ko ko léegi nag ñoom li tax alors ñu am tension de trésorerie bi ñun maîtriser bu loolu. joxuñu leen tamit explication. bon euh, bi ñu déggee Martial dafa wax ni fii nii mi ngi si tension de trésorerie mais il reconnaît que yoreel nañu bor. Hmm. léegi nag ñun yoreel nañu bor boobu te pré. c'est un peu ba ngeen yégloo ak euh, ba ngeen dooree seen plan d'action ndax am na ñi nga xam ne jot nañ leen woo euh, muy UCG wala tutelle bi pour ngeen toog waxtaan. non UCG par euh, la rajo. Hmm. bi mu yëgee communiqué bi wax ni peut-être dañuy grève ci la dugg à la TFM. Hmm. wax ni alors bon moom xam na ni alors situation bi métti na ñu ngi ay mécanisme mais pour le moment léegi daal. daal moo gën te ñun depuis booba ñu koy interpellé ñu ko doon bëgg ñu toog mais toogaay boobu moom mosul am parce que du booba mi ngi fële Medina Baye si gàmmu bu ñëwee il va nous revenir. Mm-hmm. ñu toog quinze jours. Mm-hmm. waaw ñu toog quinze jours dégguñu ko après bon. léegi euh, na si ñoo xam ne sax avant grève bi fi gaara mm-hmm. waaw am ñoo xam ne avant la grève sax amatuñu def parce que d'accord léegi yéen euh, tey jii comme UCG euh, moom defu ko de manière officielle yéen euh, kan ngeen namm waxtaanal ci seeni jafe-jafe yi nga xam ne moo leen dab jamono ci mooy ki ñu mbokk yi fi yëpp le président wala le ministre ñooñu kay ñoo rek le problème bu ngeen sañoon ñoom ngeen di waxtaanal ah oui bu boobaa y aura une solution définitive parce que boo toogee ki nga xamee nii moom nga jàkkaarloo moom xam ne moom moo xam mécanisme buy def digle boo xamee daf lay fay. Mm-hmm. Mm-hmm. ci grève googu sax euh, ban diwaan ak ban diwaan la concerné ndax Dakar rek la concerné wala euh, région yi nekk ci Sénégal yëpp. non pour le moment si euh, remontée yi ma am Dakar la. Dakar région bi. waaw ak ay département mhm. waaw ak département voilà. d'accord euh, tey dañoo bëggoon a xam ban dispositif euh, ngeen di ban rôle ngeen di jouer ci dispositif euh, li nga xam ne moom mooy gestion des déchets yéen ñii di concessionnaires yi. concessionnaires c'est les transporteurs ñun ñoo am suñuy oto ñooy fay suñu gasoil ñooy dépanner on a nos personnels fay ñun ñooy yóbbu mbalit ñi fële au niveau de Mbëbës. Hmm. waaw. kon bu ma la déggee ngay wax grève bi euh, dina tax ba yóbbu mbalit mi du am euh, boo mayul dinañ ko sotti ci euh, artère yu gën a mag yi fii ci mim réew. waaw du dem parce oto mbalit da daan ñëw klaxonné yow nga génn sa mbalit keneen génne mbalitam bu amul kay kon bu woowaa yow da génn rek bu amul poubelle à côté nga teg ko foofu rek ah. tey ndax seen grève bi am na dayo gi ngeen ko doon xaare Ah si, Hyundai est remonté, euh, on est presque à 90 hein. Bon, au niveau de Dakar, il y a aucun véhicule qui a circulé, hein, à part quelques. dëkk ak mbalit dina metti lool seen grève bi ndax am na àpp. non àpp bi c'est relative noonu ko relativiser àpp bi mooy bu ñu woowoon tey jii. trouver une solution pour le règlement des quatre-vingts pour cent qu'on réclame. Uh-huh. mais bu bu demain matin on reprend incha d'accord kon yéen daal nañ leen jox kàddu gu leer nañ euh, ci xaalis gi nga xam ne moom lañ leen yoreel. waaw pour ñu mën a fonctionner ñu fay tamit fournisseur après on continue. kon yéen euh, ci yàq-yàq euh, tey bu weesoo gasoil ji lan ak lan nag ngeen am comme yàqu ci li yàqu si yéen. non li yàqu si on est tout mais ñi ñu ñu toog à part gasoil bi ñi lay jox moteur ñi lay jox pneu euh, ñi lay jox ñoom ñoom ñu ngi toog di la xaar ah. Hmm. ñoom ñëpp yéen a ngi leen a yoreel. Ah, ñoom ñoom ñu leen yoreel. Hmm. tey njiitu réew mi ba mu nekkee Dubai am benn kàddu gu mu yëkkati jëm ci cet ci set mi ci mim réew mu jàpp ne Sénégal war naa mën a mel ni Dubai tey yéen ñii di concessionnaire yi ban jàngat ngeen di def ci kàddu yooyu le mais dama ko dama ko rafetlu après mais j'ai interpellé sur une partie de la rajo si benn rajo ou bien télé. Hmm. pour dire que ni ñu ngi rafetlu clin d'œil bi président woote Dubaï. Hmm. mais clin d'œil boobu pour mu am il faut que mu associé si concession concessionnaire yi. Hmm. parce que ya a am na ñoo xamante ne fa quarante ans trente ans vingt cinquante ans trente ans suivant kon ñooñu am na expérience ci seetal dëkk bi. et que bu ñu si associé je sais que ni alors. Euh, kon daal bu leen boolee ci mbir mi mën naa am mu dox daal. non day dox sax bu ñu ci boole day dox. bu ah, ci boolewul. ah alors dañ koy relativiser bu boobaa nag euh, tey ndax am ngeen euh, ndax yaakaar ngeen ne Sénégal am na tey moyen politique am jëm ci euh, set ci mim réew. non mooy politique bi baax na le président à la volonté. ndax am na xaalis gi baax na am na volonté bi mais ndax koppar gaa ngi fi. non koppar bi nag loolu moom affaire état la ñoom ñooy xool suivant les besoins ñu budgétiser ko après ils mettent ça en place et puis ñu dem mais nag loolu xaalisu et loolu état la moom moom mën a évaluer. woo mhm. acteurs yëpp évaluer. wax ni alors euh, nan ngeen xalaate ni pour dëkk bi set. Mhm. nan la comme ça après ñu budgétiser lépp après ñu dem. d'accord tey monsieur Yade état mu ngi leen yoreel xaalis yéen a ngi woo tamit mu boole leen ci projet cleaning euh, duma wax sax cleaning day waaye nag seetal Sénégal euh, gi nga xam ne mooy mbébétam tey jii mbaa bu leen ci boolee tamit bor bi du gën a yokk. non xam nga xam waxtaan la. moom bu ñu toogee moom bu ñu waxee seen budget fekk les différents membres yi constitué liggéey bi ku si ne indi nga sa schéma mm-hmm. mais bu boobaa bu dee génne na xaalis bi parce que bon lépp dañ koy budgétiser rek léegi euh, budget yi commencé bu boobaa buñ ko tenir en compte boole ko ci budget bi yàlla xam na ni alors euh, euh, l'argent sera disponible non et puis dañ dañ dañ ko mujjee d'accord kon daal bi ma la déggee ngay wax gestion des priorités rek la voilà <laughs> voilà. d' accord euh, Youssou Yade ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. non ñu ñoo leen di jaajëfal parce que li ngeen def nii c' est tellement important. Mhm. da ngeen di da ngeen di relayer relayer message bi. Mhm. pour que ñëpp mën a xam exactement nu mu te loolu moom ñun dañ koy defal. Mm, d' suñu liggéey la ñëpp lañ nekk uh-huh. Uh-huh. bu leeree si ñëpp rek alors euh, dëkk bi la neex. d' may fàttali ne moom mi USAID bokk ci établissement Maam Ndar euh, Ndar bokk ci collectif concessionnaire yi nga xam ne ñoo ngi jàmbat jamono ji nguur gi fay leen xaalis gim leen yoreel gu toll ci euh, sept mois ñu lay jaajëfal bu baax a baax.